jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax baax di leen wax na tey nag ñoo ngi fii Cambérène seet si ki nga xamante ni mooy Gora Sock defe naa ne tey mbokk yi mooy bëre ki nga xamante ni mooy Fils de Balla su ma nee Fils de Balla nag mu nekk combat xale combat jànk boo xamante ni combat du ko dàq waaye tey mbokk yi ñëw seet waa kër Gora Sock xaa ma njëkkee fii ba noppi ñu doo a dugg fee kër Gora Sock ne gaa ngi ne sama gaa yi nuyu naa leen. ci loone sant borom Touba yaa ngi ci yàlla sant yàlla tey nga ñëw ko Gora Sock naka nga gisee Gora waaw Gora Sock dañ ko gisee kontaan de xool sedd na waaw waaw. saa ko ñaanal ndam rek yàlla suñu borom may ko ndam ak jàmm rek. lan ki nga xamante ne mooy Fils de Balla moom nga xamante ne la war a jëflanteel tey. mu te jël booy bii na ko mu jël booy bii wax ji muy wax moo bëri. est-ce que du est-ce nu mu génnee ci moom ba noppi. xanaa génnaat la ñuy wax kay. mais génn kay kay werantee du. lamb ji ñëw. mais lamb ji ñëw na lamb ji tey la. moom laa wax bàyyi ba ngoon. Gora Sock suñu mbër pare na saa yi ngay jàpp daan ñibbi rek moo ci des. lan la a bëree Fils de faar mu samp jaaga duma ko duma yu métti jàpp ko daan ko ñibbi. ñeme naa xeex ak Fils de Balla. Serigne Bamba Mbacke Zerra Mbareko moo ko may saas. morom muy mbébi di wax. mais xam na ne booyee duñ sax moromam. waaw yow Fils de Balla na def ndànk nag mu jël booy bi sama caat. ki mooy happiness. na ma jël happiness happiness na xool yéen booy. noo ngi gisee Fils de Balla. soog non ma la fen mais prix bi dib la. lamb ji mooy barki moo ko man day sifle mu jeex. maa la ko wax fi dañ dajawaat man la mooy loolu. nee bu duggee ci tànkam yi dina ko daan jël bu ko kenn musta daan. góor bu duggee sànq da ngay xaar waaw da ngay xaar wóor na yàlla. góor mbër mbër buy paqueté rek bu la buubee rek ñàkk nga. mais mais fi sa baala diis na de. ca sën bu la jëmee xam nga sën. <laughs> Saalum Malit ma sën sën waaw waaw noonu la demee nag. Vallo. Vallo ziar. delloo ziar gaan. naka ngeen naka naka ngeen waajalee Gora Sock diggante ma fi sa baal. waaye Gora Sock pare na bu yàgg Gora Sock dafa pare démb tey soog a ñëw noonu la demee quoi gor Sock moom koo xam-xamee ko liggéey entraînement gëm boppam waaw. dañoo gis muy song mais euh, fi sa bala nee na bés bu ko Gora Sock songee dootu ko defat ah kon moom mu ngi sóoraale Gora Sock song ko moom xalaatul def day xalaat ñu def ko waaw moom bu ñibbee lay comprendre bu ko Gora Sock songee bu ñibbee lay comprendre waaw bu xoolee ba mboor mboor bi song ko bu ñibbee lay comprendre waaw doole doole kaw. est-ce dina xeex. mën na am lépp Gora Sock pare na lépp xam nga luy problème wax pare na pour bëree noonu loolu mooy coow li kon Fils de li muy wax pare na pour bëri mais Gora Sock yàlla mi yor ndam yàlla kattanal ko may ko ndam ci barke alxuraan. baax ñu xool ci buntu bi ba xam dinañ mën a jàll. na ku ma gis. mooy noonu taxaw booy. lamba gi noonu c'est tey lamb. da ngay wax aada jëlal fii. aada kaay ñëwul kooku daa ragal. sant yàlla bu baax. naka ngeen waajalee tey waaye bis mooy ñu ngi pare daal en di ñaan yàlla suuraal ñu ma ñu ndam. naka nga ko gisee góor. waa mi ngi ci ataa de. waaw yàlla suñu borom suuraal rek. maa ngi wax fi sa bàll fi nag boo xoolee euh, yow yow yow waa parcelle yebuñu ko. non aar moom du loolu ñun li andi leen gëm en tout cas fulaak faay la ñuy bëri mu incha allah te koy daan waaw ñu dëgal boobam rek. kan dëgal boppam. Fils de Balla dëgal boobam. dëgal boppam nga yow Fils waaw moom nanguwul ko song nanguwul ko xeex ci moom mbër mu tàng bu bëree saa bu moom daan ko. nangul ko ko song nangul xeex ak moom. bilaa walaay du caaxaan. ban ngeen ciy def. ñun lépp la ñuy def tey pare nañ lépp na taxaw rek dëgal boobam. yéenay def lépp. waaw ñoo koy def. te incha allah yàlla dana may ndam seddu guy ci karan suñu borom yàlla mën na ko yàlla na ko incha ci karan suñu borom. Ada gis nga maa ngi nii bundu ko góor soog yaa ngi dégg ci taxaw ci bundu bi dégg nga ni mu ko waxee ana booy booy ñëwal lan moo la andi fi. man combat góor soog bi ah. waaw. lan ngay wax góor. góor bi su jàppee fi sa baal da koy def ni xale. mun na ko def ni xale. bilaay yow. nga ko Fisa Baala daa métti de. ah Fisa Baala dina xata. dina xata. baal sooy nag nëxate de. taxawal boobu dinañ ko dóor dinañ yaa ko gis. dégg mag bi yow. mbaa gars yi xam nañ bu ngande ngande wala xamuñu ko. mooy nag bu ngande. non loolu. kooku amul koo soxla ngi noonu. déggal góor xoolal mbokk gisoo kii ngay nan fii sa Balla gisoon daanaan bi kii du moroomu fii sa Balla ñun duñu wax ak gaay may ni kooku ndaxatal la mbokk sogo ngi noonu saraxe ay galaas góor ngi noonu sol ci shirt bu jaune ak bu xonk moo nga joxe galaas sotti na ndox ma moom góor ma ngay duggaat nee na kaay génn leen kaaw kaay si loolu la jaar tey noo gisee góor xool ko lu mel xam nga ni pare nañ incha allah dañuy xaar jour bi rek yàlla ma ñu ndam incha allahu rabi mooy loolu boo ko xoolee xam ne pare na waaw kon kenn jàpp ko ci mystique kenn jàpp ko ci dara ak nu ko gisuma loolu wax dëgg fa yàlla instant moom ñooy diriger moom lan ngeen wax Fils de Balla Fils nañu xaar rek bu mu def dara ñooy def lépp incha allahu rabi loolu yomb na de ba bis ba si kanam yàggul Ousseyn doo yaa ngi noonu ci góor na ñu muy woo góor a ngi noonu di woote làmb làmb daal lépp ay tegtal la am na lu muy laajte de ticket góor <laughs> a ngay lijjanti ticket ya ma ngay daw <laughs> xoolal ma galaas la galaas de defe naa ni jàmm la ñu bu tooyee sedd maa fi gis ay dugub maa ngi lay fay tey naka naka nga gisee sa poulet waaw sant yàlla bu baax comme yàlla may na ko weer ba ñuy dem si làmb ko kon sant yàlla bu baax avant tout daal maa ngi sant yàlla bu baax di sant suñu borom bu weer weer wér a bi alhamdulilah sant yàlla bu baax ñaan yàlla yàlla may ñu ndam si kàttu suñu borom. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mbër ci loolu. Ousseynou naka naa seey. gisee góor. waaw fii moo loolu góor dañ koy ñaanal ndam rek xam nga ndax moom borom baax la moom borom xol bu rafet la dañ koy ñaanal yàlla rek xam yàlla may ko ndam bu gën a kawe. lan moo ko ci mën a may ndam tey. xeex bëre dem songu wala taxaw xaafi sa baal. bi lépp man gis naa ne góor si sa lépp lu mu indi góor a moo ko ci mën. billahi wax jee fi nekk nii rek xam na ne forme góor ak forme Fils de Balla bokkul. mais amul différence. am na différence kay. différence ah. góor a ko koy gis-gis ci moom ay muscle yu baax. kee nga gis ko mu mel ni pëpp dafa dafa fi mu toll nii wàññi na poids bi baax naa gëjoo gis. nañ bàyyi doom yi. gars doom yi lañ war a bàyyi te yor forme naturelle yor doole naturelle góor dool doole buñ jàppante daal di nga gis ne doole dina feeñ tey bu jàppante buñ xeexee lépp góor a mën waaw baax na ci kanam. aja xéwal. waaw dama ne la Gora Sock da koy yàq. Ah. barki alxuraan da koy yàq. lu too loolu foo teg. Gora Sock ko bu doole. Ah, loolu nga gis. yow sa bët moo la may xool lim la keneen waaw booy. fi sa baala day xaar. incha allah wala Gora Sock li mu mobilisé. ku mënul lii dina faa nga mën li topp la. Ndiaga Mbaye waay mafia bi géej géej lépp topp la xam nga. Arlem Fakhalaan fépp. Gora Sock da koy Talfa nuyu naa. Ousseyn fay naa la. ne. rek. defe naa ne fi mu toll nii na ba noppi. waaw yaa gën a gaan. defe naa ne ñu doon préparé ay mois bañ na tey fi mu des naka nga gisee Gora Sock en tant jabaat. wax dëgg yàlla Gora pare na quoi bu la liggéey rek ay may ndam ma xam suñu borom dina ko may ndam waaw te di ko ñaanal ndam lu guy bu gaaw. état d'esprit bi fi mu toll nii naka nga ko gisee. non état bi mental moom fort na moom naa kay ndam la rek a des waaw mais fi mu toll nag waa Guédiawaye dañoo dañoo dañoo dañoo bootu ci ginnaaw ki nga xam te ne mooy Fils de Balla ndax defe naa ne ñoom ñooy tëj saison bi boo gisee Fils de Balla ni muy wax ak confiance bi muy dégagé boo gisee ni muy waxee naka la lay def. <laughs> moom ay ree la may def moom bu waxee pare rek ay ree la may def. lan ñu bëri si làmmiñ te bëri nekkul si làmmiñ si biir géew bi la. waaw ñu boot si am nag loolu dara parce que moom rek mooy dugg si biir géew bi la ñee dañuy xaar. waaw dama dégg mu ne euh, Gora Sock bu ma songee sama tànk la jëm waaye bés bu ma songee ma daan ko jël boo xamante ni nii jël bu musul daanu. ponkal xajul si ay tànk ne mu xool leneen xam na ne moom si tànkam leen jëm dañuy ñëw de moom xam na lool sax. est-ce que Gora dina dugg ci tànk Fils de Balla yi. koy duuma ba pare sax. xeex men xeex moom ba pare doo ko daan. yaa ngi may wax leneen lu bees. moo day xeex moom ba pare laa doo ko daan Fils de Balla xam na lam si làmb ji. parole muy wax ju bari. amu si leneen moom xam na lool bu baax. loo koy wax. te ñoo ko gën a soxla fuuf sa waay dafa bokk si làmb war a bokkaat bi waaw di ko ñaanal ndam lu guy. mais dama gis tey waa Cambérène dañoo teel a génn teel a waaj mobilisation bi. na sax am ñoo xam ñëwagul xam nga gars moom samedi mooy lool dañuy biddanti mais tey stade bi nañu xaar dina ko duy ba mu fees bërëb bërëb bi daan daan bi. waaw dinañ gis beneen góor soog bu ñu gis buñ buñ buñ buñ dul woon gis. beneen ngay gis bu garaaw bi. kii gémeur bi la de gémeur bi la koy tegal fi sa balla na xam loolu ah. waaw. baax na kon kontaan naa. ñu la jaajëfal Ousseynou. Ousseynou nuyu naa la. waaw waaw maa ngi lay far maa ngi lay ziar bu baax di la jox sama cooy. xanaa yow yaa àndoon ak yaa àndoon ak góor soog ci préparation bi ci entraînement yi naka nga ko gisee. waaw góor moom vraiment balaa dara dañ koy ñaanal suñu borom defal ko ndam fekkee coono moom vraiment daj na ko parce que préparation franc Papa Sow moo cité bu yàqu dam seen bi xam nga vraiment da ci doon nekk moom moom non noppalu benn yoon soo ko gisee da nga xam ne entraîné na vraiment yàlla na ko yàlla defal ndam fekk coono moom vraiment suñu borom dina ko defal ndam tey incha allah. entraînement gannaaw na ci. Fils de Balla moom kuy bëree moom ku ne di nga xalaat xeex bi est-ce que pare na ci xeex. waaw góor a mën na xeex mën na bëri xam mën na xeex mais góor a mën na xeex mais làmb kenn du damay def lii am na daal lu waaj loo xam te moom xam naa suñu borom su ko dogalee moom mën na ci am ndam maa na gaaw mën na yéex parce mbëru bëre mbër mi nga góor a day loxo moo tax ñoom ñaar seen bëri dafa xaw wute léegi nag njëkkante rek lay doon ku nekk da koy xañ li mu mën rek yow nga def li nga mën suñu mooy avantage góor soog a mooy avantage am mooy at bi sifflé comme gauche lay teg def déplacement gauche droite déglu ko di xeexe benn loxo moom moo war moo war a diriger combat bi góor a diriger góor a moo war a diriger combat bi est-ce que baal dina ko bàyyi mu diriger mais ku mel ni Tyson 2 da ko diriger jamtéer yi da ko diriger euh, mobile góor da ko diriger góor a attaquant la du xaar su arbitre sifflé moom dafa war a dem bëri bi mëninam la moom dafa war a song si war mooy mu xañ Fils de Balla bañ a moom mu bëri si kawam su ko defee rek suñu borom mën na ko suturaal jërëjëf suma sëriñ yàlla na site bi dem ba nekk télé ci barke Cheikh Khadim liggéey bi moom barkeel na bari ci di nuyu nag Gurel ak Aliou bi ma a baax. fay nañ la faar. tey naka nga gisee Gora Sock muy préparé digganteem Fils de Balla di waaj a génn nan nga gisee Gora Sock. Gora Sock daal ñun ñun moom man ni moo ko gisee mooy pere na fépp. mais liñ koy sas mooy nañu nañu bëreel si fulla ak jom ak ngor jàppal ñu waa ji sambaral ñu ko sànni fële match bi tas. est ce que dina mais garaawul ñun 100 pour 100 bi lañ bokk. ñëpp a mbër yëpp a pere mbëru parcelles yi amul ku perewul ñëpp a pere fi mu toll nii jàpp daan dafa xew pour na loolu góor bala day xeex de non mais garaawul ñun même bu xeexee sax ñun nañu ko jàppal rek sànnil ñu kondar ndar bi tas ñun loolu rek lañ ko sas nañu jàppal waa ji rek sànnil ñu ko ndar kon baax na très mbër